moo tax sidna ali ibnu abi wax ne nee na ma fab benn euh, benn koppar ma fab ci misaal ma fab fukki dërëm jokke ko ak bokk moo moo ma gënal ma fab téeméer di ko jox miskin ndax soo jokkee ak bokk ak fukki dërëm dangay am ñaari tuyaaba da nga am tuyaabooy ku sàkk sarax waaye da am tuyaabooy ku jokk bokk moo tax mu ne la an asila bi dirhamin ahabu ilayya min an ata atasaddaqa bi dinaar kon ndekkee ku liggéeyul doo mën a jokk sa bokk wax naa ko léegi am na ndaw ku ndaa yoo xam ne boo dee nuyoo rek di dem bis bu set nga nuyoo te doo joxe dara ah nuyoo de baax na waaye nag joxe dara euh, dafa baax kon nag nañu liggéey ndax ñu mën a joxe mën a jokk ak bokk nañu liggéey ndax ñu mën a dimbali ñi ñu tane ndax foo dem ci àdduna yàlla dafa sàkk ñu woomal ak ñu woomalul demal Amérique Amérique ki gën a woo ñi gën a ëpp alal ci àdduna am na ñoo xam ne euh, ca mbalit ma la ñu nekk di foraatu am na États-Unis ñoo xam ne ca mbalit ma lañuy la ñu seet ndax ñu am lu ñu lekk wala lu ñu jëfandikoo demal ci réewu naar yi euh, réewu golf yi ñi nga xam dañoo bari alal am na ñoo xam dañu tàllal seen loxo di laaj sarax kon yàlla moo bind noonu àdduna bi mu ko defee ne dafa bëgg dafa nattu day nattu ñi amul ba xam ndax danañu saalit ñi am tam ndax danañu bew li yabluwakum ayukum ahsanu amala day seet ba xam ñi am ndax ñu bew ndax danañu xeeb ñi amul ndax ñu seetaan ñi amul wala dañuy dimbali ñi amul ñi amul tam ndax dañuy xarab yàlla ndax dañuy saalit ndax dañuy añaan yàlla kon dafa sàkk kii sàkk kee ngir nattu ko waaye nag boo dee dimbali ñi nga tane dangay ngay doo doo am daani yàlla ndax yàlla dalaa jox ngir nga séddale moo tax mag ñi naan ku yàlla jox fukki peere daal la xamal ne mënoo ko sol dalaa sant nga séddale ko comme fukki mbubb mënoo ko sol dalaa sant nga séddale waaye itam ku ñu jox ay million dañ laa sant nga séddale kon na nga séddale moo tax yàlla naan wa aatuhum min maalillaahi allazi aataakum alal ji yàlla moom te dénk la ko na nga ci jox ñi nga xam ne ñoo néew doole loolu rek jar na liggéey liggéey ba am di dimbali ñi nga tane bu ko defee ñu lay yéenal danga jox ku néew doole mu naan li ci des yàlla barkeel da lay yéenal la ca des te dalay ñaanal waaye soo amee ba giijal te doo dimbali say dëkkandoo yi nga tane neexul ba neexul waaye dana ci am ñu la añaan li nga yor du ñu ko tey sax dañ añaan li nga yor waaye boo leen joxee dañ naan li li ci des yàlla na barkeel boo dee liggéey ba amus tuut di dimbulee eh, day tax nit ñi sopp la nit dafa fonk boppam soo ko fonkalee boppam nag mu fonk la moo tax yonent bi saa wax ne tahaadu tahaabu day leen joxante ay teraanga kon da ngeen soppante nit ki soo ko joxee xéewal ak lu mu loo ko xeeb xeeb moom du ko xeeb ndax yëg dafa am solo danga jox nit ab bindukaay rek biig bu rafet mu bég ci yow da ko jox xaalis mu bég ci yow da ko jox ay dàll mu bég da nga ko jox téere mu bég ci yow nit ki dafa fonk boppam soo ko fonkalee bopp mu fonk la moo tax yun saa xam ne tahaadu tahaabu ab sëriñ sax boo ko dee jox da gën a fonk ki ko jox moo koy gënal ki koy laaj sëñ bi nee na wala tazal ilayhi za ihdaa'i lahu bi ma stataata min aataa'i walaw qalilan limtisaali maa warat min annaha tazidu xubba man yawat gis nga kon day day dolli cofeel joxe day dolli cofeel joxe hadiya day dolli cofeel moo tax kon di liggéey ba amus tuut di toppatoo say wajur di toppatoo sa njaboot eh, di jokk ak bokk di sarax ñi nga tane di jox say kilifa muy say sëriñ ñu ñëpp gën laa sopp di la ñaanal loolu day jàmm ju dolli ko lay doon xéwal gu dolli ko lay doon ba tey boo dee liggéey ba amas tuut waxoon naa ko sànq mooy tax am na ponk lislaam yoo xam ne ku amul alal doo ko mën a jëfandikoo lu mel ni dem màkka xam ngeen ne dem màkka ku amul alal wala ñu mënal la ko doo mën a dem màkk gis ngeen sax ren ni ñu yokkee billet màkk yi nga xam ne xaalis bu weex tàll ngay am soog a dem màkk waaw boo toogee rek nag topp keppaar yi ak ker yi ak grand place yi nangoo liggéey te te aj ponk bu lislaam ndax danga ko mën a jëfandikoo kon doo mën a aj faw danga koy man wala ñu mënal la ko te nga mënal ko sa bopp nag moo gën kon nag nekk di liggéey ndax nga am as soo mën a joxe say farata jar liggéey ba dee lu mel ni azaka nag nga am alal mu mat nisaab nga sàkk ca li yàlla santaane jox ko miskin jox ko ña ko yelloo boo du liggéey doo am nisaab te ku dul am ni ku amul nisaab du mën a génne azaka kon ndeke liggéey ba toskari ndax nga am alal ba am nisaab ba joxe azaka jar na jar euh, jar na ko kon jaamu yàlla yi nga xam ne alal moo koy def ku dul liggéey doo ko mën a jëfandikoo euh, lu mel ni berndeel gan nag am na ndaw kundaa yoo xam ne bu ñu la ganesee boo deful ay bernde dootoo leen gis su ko defee dangay berndeel gan amee ca toyaa jurul jeex man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri lu ci tege fal yukrim na teral ganan ku gëm yàlla gëm ne ëllëg yàlla mooy fay ku jëf na nga teral sa gan te boo dul fas xaj am na ñoo xam ne bu gan nee salaamaaleykum ca buntu pot ba la ñuy jaar dañuy daw ndax xaj na amuñu lu ñu berneel seen gan xaj na amuñu ko waaye dañuy daw am na ñoo xam ne am na ndaw ndaa sax boo xam ne dégg naa dafa daw dugg ca sàq ma ci ginnaaw kër gi ca sàq ma la dugg euh, nëbbutu fa xam ngeen ne loolu noppalewul waaye boo dee liggéey nag ba amul suur da nga am loo mën a berndeel euh, say gan liggéey am na beneen njariñ mooy doomu aadama yàlla da ko binde ku mu gis defe ne moo la gën ñu bari ci ñoom bokk waaye ki nga bokkal benn benn liggéey dalay nawloo ki nga bokkal menn métier faw mu nawloo la yéen bokk di xëy di bokk di yendu di wàccandoo di demlante faw mu nawloo la moo tax liggéey rek am na beneen njariñ mooy day tax nga nawloo sa ñi nga bokkal islaam di tax nga nawloo nit ñi ndax defe ne yàgg nit ñi dafa bokk ci sikk yi nga xam ne dañoo war a xeex ak bakkan ba ba jële ko ci nit defe ne yaa gën koo gis te bari ñu mu dal waaye ñi nga bokk liggéey moo moo xam ngeen bokk tool ne ca waar wa wala ngeen bokk biro wala ngeen dend ay boutique danga koy nawloo kon liggéey day tax nit ñi nawloo nawlonte liggéey am na beneen njariñ mooy soo di soo di liggéey lu dagan ba am lu lew day tax nga mën a jëf jëf ju baax lekk lu lew day yombal jëf ju baax bu fekkee jëf ju baax dalaa jafe nanga xoolaat li ngay lekk gis nga bu fekkee jàng alquran dalaa jafe jàng xasida dalaa jafe yeewu guddi naafila dalaa jafe julli ca mbooloo ma dalaa jafe xoolal li ngay lekk lekk nit ki li muy lekk loolu lay jëfe boo dee lekk lu lënt da nga jëfum lënt booy lekk lu ñu sib danga jëf lu ñu sib booy lekk lu xaraam da jëf lu ñu xaraam waaye booy booy lekk lu lew faw nga jëf lu lew moo tax sëñ bi wax ne yaa saaxi kul ma chita tafaal mislahu wa xaalilan man chita taxdu shaklahu ab xarit koo bëgg a jël jikkoom na nga xaritoog moom kenn mësu gis sàcc boo xam dañ naa mooy mooy ndey sàcc ci tund wi waaye moo ko ilimaani dëkk ba ñu ne mooy xaritu benn bakkanam nday sàcc ak ilimaan mënuñoo ànd mënuñoo bokki dab sàcc sàcc rek mooy xaritam kuy jàngale alquran sëñ daara rek mooy nekk xaritam ku bëgg lu baax ku bëgg ku lu baax rek lay àndal kon nag ab xarit ni muy defee ci yow di dindi ci yow lekk tam noonu lay defee ci yow di dindi ci yow booy lekk lu lew dangay ngay euh, da ngay mën a jëf-jëf ju yiw booy lekk lu lew day tax sax boo ñaanee yàlla mu nangu lekk lu xaraam ba noppi ñuy nangu sax ñaan mënta nekk yonent bi ne saa sallam da gis koo xam ne day day fagg day fënd day fagg sol lu sol lu fagg dikk yàlla ay loxoom naan yaa rab yaa rab di ñaan rek yàlla waaye la muy lekk dafa xaram la muy naan dafa xaraam la muy sol dafa xaraam nee na kooku ànd yàlla di wuyoo ak ñaanam mënta nekk kon da ngay sol lu yiw dangay ngay sol lu dagan di lekk lu dagan loo ñaan yàlla may la ko moo tax Saad ibnu Abi Waqaas mos naa ko yontu bi ne ko dama bëgg ñaanal ma ma am lijaabatu lu ma ñaan yàlla mu nangu mu ne ko atib mataamak tustajab daawatuk de lekk lu lew kon loo ñaan ñu nangu ko booy lekk lu lew wax naa léegi day tax jëf yu yiw dalay yomb yaa ay rosulu moo tax ku defee ne noon yi doon jàmmarloo ak cheikhul xadim ak cheikh ibra faati dañoo tekki seeni jàjj dangay nelaw ñoom duñu tekki seeni jàjj ñoom sax dañoo soppi seeni ngànnaay ndax nag nun soppi nan soppi nan suñuy gànnaay loolu tam lu mat a bàyyi xel la liggéey day tax nit ñi ñee la ku liggéey ba amus tuut day tax ñu ñee la soo ci defee la nga war a def te bokk ca ña ñuy ñee moo gën ñeetaate yonent bi nee na ñaar rekk ñoo jara ñee koo xam ne sunu boroom da koo jox alal mu koy defaat ci jaami yàlla yi ak koo xam sunu boroom da ko jox xam-xam mu koy jàngalaat jaami yàlla yi neen ñaar ñi rek ñoo jara ñee la xasada illa fisnayni rajulun aataahu llahu maalan fa sallatahu ala halakatih fi lxaq wa rajulun aataahu llahu alxikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha kon nga liggéey nag ba am alal di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi comme ni ko suñ fallu daan wax suñ fallu mbàkke naan day leen jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi waaye nga liggéey ba am alal jurul jeex di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi da bokk ca ña ñu ñee te bokk ci ñañuy ñee moo gën fuuf bokk ca ñay ñeetaate kon nekk di liggéey rek ndax nga bokk ca ñañuy ñee jar na liggéey ba sonn te soo dee liggéey ba am nag dangay sukkandiku ci yàlla waaye sukkandiku ci sa bopp waaye doo sukkandiku ci kenn ndax nit ñi kat ku wékk say soxla ci ñoom bis sa bët dana xonq te kenn du ko weexal dangay wéeru ci yàlla waaye nag sukkandiku ci say say effort ak say coono waaye di laaj rek bis dana ñëw nit tas sa yaakaar ndax Sëñ Tuubaa mos naa wax ne euh, doomu aadama lu mu bari la bari la boo dëkkee ci di ko laaj bu yàggee mu jéppi la yàlla nag loo bari la bari la boo saxul dàkk ci di ko laaj bu yàggee mu jéppi la ne xam ngeen lu ko waral la ñu ne déer mu ne maa indakum yanfadu wa ma indallaahi baaq doomu aadama day jeexal moo tax boo ko dee laaj saa su ne bu yàggee mu jëppi la yàlla mi dul jeexal nag kon dee ko laaj te sax laaj day tuur ndoxum xar kanam day tuur ndoxum xar kanam yonent bi neen saa salaam ku bàyyiwul laaj da nga dajeek yàlla doo am dara ci ndoxum xar kanam da jeexal ndoxum xar kanam laaj nag am na ñu ko sañ am na ñu sañ a laaj ku yori bor ba mu bari lool sañ ngaa laaj euh, ku ñàkk lool sañ ngaa laaj euh, ku néew doole ngir laago lool sañ ngaa laaj ku màggat lool te amooy taxaw sañ ngaa laaj kon am nañu sañ waaye nag tollu ci sa sa digg waxambaane sa kawar ñuul kukk nit ñi di jëf di jël nga ñëw naan jëf leen ma jël loola moom ak taalibe xamu ko murit jëf jël la xam waaye nag jëf leen ma jël loola moom euh, murit xamu ko kon nag bi ñu xamee lii lépp nañu xam ne toog rek di latoo jaamu yàlla ab jullit sañu ko jàng alquran baax na lool waaye boole ci liggéey jàng xasida baax na lool waaye boole ci liggéey euh, dox bokk baax na lool waaye boole ci liggéey xam ngeen ne Omar ibnul Xataab naa fekk ci jumaay Madina ñu toog rek du ñu liggéey mu ne leen waaye yéen yéenee ñan ñu ne ko ñoom ñu ne ko naxnul mutawakkiloon ñun de dañoo jàpp ci yàlla ñun ñooy ñi jàpp ci yàlla dañoo wakkiir mu ne leen waxu leen dëgg ku wakkiirlu day dem faste xànc ak morom ja ba noppi nag bàyyee yàlla boppam xam nga nag xam nga xam nga ne tool moom ki am ki ki ki ki ruuj faraasu wakiilu na ci yàlla ndax ab taw lay nekk tey taw yàlla moo koy joxe ki xëy tam ubbi butigam du saña a poñe kenn ne ko ay jënd du poñe kenn day toog xaar yàlla waaye nag la ko war def na ko kon dangay ngay sabablu kon wakiilu mooy sabablu moom la sëñ bi naan waalam bi anal kasba laa te tawakkulan kër këri ak wakiirlu dàqonte wuñu ñoo ànd laa takusa itlaafi moo tax omar nañ leen waxu leen dëgg de kuy wakkiirlu day daane dooleem ba nopp bàyyee boppam ak yàlla mos naa fekk tam ci jumaay madina koo xam ne day julli rek di sëlmal julli rek mu ne ko loo fi def mu ne ko ataabat damay jaamu yàlla mu ne ko man yauluk waa ku lay dundal mu ne ko axi sama rak sama mbokk mu ne ko axuuka abadu minka sa mbokk mi la yor de moo la gën a jaamu yàlla ndax moom ma ngay julli ma nga yor boppam waaye ma nga yor keneen yow nag ngay julli rek ci sëlmal naan dañ maa yor damay jaamu yàlla yow day jaamoo yàlla moom la sëñ sëñ bi naan fatarku kasbin liddiaa tawakkuli ma altifaatin fi'lu umrin injali wala yanjali nee na bañ liggéey naan dama wakkiirlu ci yàlla tey ñeetaate nee na ab dof rek moo koy def ku yor oto bu rafet nga di ko ñee ku am kër gu rafet nga di ko ñee te doo liggéey ne damaa jàpp ci yàlla nee na ab dof rek moo koy def loolu la Sëriñ Tuubaa wax gannaaw nag xame nañ ne nii la liggéey amee solo kon yow mi bëgg liggéey ana looy liggéey xanaa bépp liggéey boo xam ne rek njariñam day yaatu ci xeet wi liggéey boo xam ne njariñam day yaatu xoolal mbay ni mu barkeele dañuy bayee tool ca Saalum waaye mën nañ ko sëf ba Daarul Muxti ku dëkk daaru mën na ko jëfandikoo dañuy bayee ceeb ca Waalo waaye mën nañ ko yóbbu ba kasamaas nit mën ko kon lu njariñam yaatu mooy liggéey yi gën ci liggéey yi moo xam nag muy mbay wala muy njaay walla muy leneen lu mel ni ab